mbokk yi jaajëfal leen amati mbégte ak contentement ci ànd bi ak wasaare ak Leewtoo xam ngeen ne bisu le 6 janvier Leewtoo production moo ko taxawaloon Tidiane Faye ak Ndandi Fall ñoo doon bëre grand combat ba waaye guy gi Ndofène bëre na fa ak gintee daan ko jël ba nga xamante ne bii ku xef gisoo jël ba li yi naan vite fait bien fait loolu la ko loolu la ko def ñu seet si guy gi fa seenee waxtaanaat ak moom ndax ñëwoon na avant combat bi mais après combat bi dañuy ñëwaat. waxtaanaat ak moom ci waajtaayu combat bi ak après combat bi fan la jëm ndax ci ay victoire la toog fi mu toll nii te dafa jot nag fi mu toll nii ndaanaa ni nekk ci làmb ji bàyyi ko xel jël ko champion nuyu naa Mbaye Babacar fay naa la di nuyuwaat bu baax ginaaw ginaaw bu ma sante yàlla rek di julli yonente bi di sant sama ñaari waajur waaw di sant sama waa dëkk Ndofène waa Diourbel ñëpp waa poste Thiaroye fi ma fekk nii di sant borom kër gi Traoré sama papa maa ngi koy nuyu bu baax si ak sama gars yi ma fi nekkal rek ñoom suma ñoom Adama ñoom Roqia ñoom Baye Ngom ñoom Baye Ablaye yëpp ñoom gay ak ñoom Elimane sama gars yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax baax di la nuyu yow tamit bu baax a baax di la jaajëfal ci déplacement bi. ci guy yaay guy gi Ndofène. <laughs> maay guy gi mais naan guy gi Ndofane. guy gi Ndofane xanaa répété ñu xamul Ndofène rek moom la ñuy tikkale Ndofène ak Ndofane mais man Ndofène laa dégg. waaw man Ndofène laa dégg doomu Ndofène laa Ndofène mu ngi nekk réseau de Diourbel commune Donkoye Mbayar. waaw man doomu Ngoye Mbayar. après ay 7 kilomètres de Diourbel. après 7 kilomètres de Diourbel. waaw fala foofu mooy Ndofène. pour ñu xamul quoi. ayca mi ngi noonu loolu am na solo yaakaar naa nit ku nekk fa nga dëkk foofu ngay sagoo foofu ngay ndamoo foofu ngay tiitaroo day bokk ci li nga xamante ne bi day tax nit ñi gën laa respecté mais nga jëloon gintee borom cerek ndawal nekk écurie Falaye Balde di mbër ma nga xamante ne bii ñu bëri ne woon nan moo la ëpp expérience bi nga ko jëlee ndax moo la jiitu ci làmb ah man de combat bi mën naa laa wax ne moom nekku woon yeneen combat yu ma jaaxal ndax per sama papa Maxime Bergane maa ngi koy nuyu boobu passage di ko nuyu di ko ziar bu baax moo ko xool rek keroog moom it moo defoon ko combat waa ndax moo ko moo ma jëloon xeeboon ma trop ma ne ko walaay di nga xeeb xal ma moom ginte ginte dama dañoo daje arène nationale mu xool ma xeeb ma trop <laughs> ma ne ko bilaay yow xamoo di nga xeeb xaal mu lak sa daay <laughs> bilaay Maxime ne ma baax na ma ne ko baax na mais loolu moom defuma woon combat ndax am na fu ma tegoon sama bopp fu gën a métti loolu waaw c'est que nag moom am na lu mu dugaloon ci xelam mais xëy na damaa xamul rek moo taxoon muy doxale noonu ne woon naa ko nag ci signature bi après ngay comprendre mhm. après waaw ne woon naa ko après lamb ji ngay comprendre yow xamagoo ma mhm. mais mais noo ko waajee woon waaj ko rek ànd ak sama mbokk dafa mel ni bi sax yàggul noonu non wàccaay bi yàggul ndax combat boo xoolee ay 15 jours mais ñun su nekk dañoo pare ndax combat ak ñàkk a combat tout le temps ñoo ngi entraîné waaj ko sama mbokk nag waa Lamsaar di leen nuyu bu baax a baax ku ci mel ni ñoom ku super Moussa ku super Moussa père Ndongo ak ñoom Koyens ñoom Tanor bu Diourbel sama grand frère kii Tidiane Faye waaw kooku yow ku son ci ñun la waaw di nuyu mbëru Lamsaar yëpp bilaahi mbëru Lamsaar yow mention spéciale pour ñoom dañ ma jàppale ci combat bi bu baax a baax a baax moo tax xamoon naa lu ma mën a demee moom noonu rek la mënoon a demee ndax xam naa lu ma liggéey gëm naa ko xam naa ñàkk a jàpp jàpp rek moo tëyee combat bi jeex. mais avant combat bi damaa ñëw nga ne ma su ma jàppee combat bi jeex mu mel ni ni nga ko waxee noonu la def noonu la demee benn jooy nga ko. noonu la mën a demee ndax kuy kon contact ak ñoom Tanor bu Diourbel ak ñoom Coyens a ñoom Fils de Max ay Tidiane Faye le professeur kuy contact ak ñoom xam lu nekk ci yow bu baax ndax boreeguma sax ndax waaw saa bu taxawee rek laa xam ne combat bi jeex na ci taxawaayam bi rek waaw. mënoon parce gis mu lewaatoo ak yow. 30 secondes 40 secondes changer pied. Hmm. loolu laa bu mu changer pied rek na xam <laughs> xam nga xamoo koy bëre la la la jox tànk. ndax damaa bëggoon la ñëg di xeex moom mais damaa xalaat supporter ak ginnaaw ak pression bi ma ne xaaral ma jeexal ko rek quoi. jarul mu yàgg teel a libéré supporter teel a libéré supporter moo tax ma sonko benn jooy rek. mais mënoon naa ne foofu bu ñu bëre nga gis gina gis dama ko yóbbu top sang mais damaa xalaat supporters yi rek ak seen pression fu ñu toll si man man xaaral ma jeexal combat bi moo tax ne ku ma woowu di xeex di di loolu mais. boo ñu ñëwalaatee ci bëre bi ni ko daane. ni nga damaa sànni rek damaa xaw a cokkaat mu nii ma xam ne saa waa ji mi <laughs> après laa ko cokkaasaat rek nga xaaral ma dem. xam naa ne moom fu ma ko jàpp day jeex ndax xale laa xam naa ne lu ma liggéey xaju ci moom maa ko ëpp doole fuuf waaw jour bu ma gisee nag xeeboonam xam naa kii bu ma ko jàpp lamb day jeex ndax maa ko ëpp doole fuuf waaw. ndax dañoo liggéey ci combat bi lu métti avant après combat dañuy liggéey avant combat dañuy liggéey. nga daw rappel ko mais bi nga ko rappelé benn tànk bi nga jël wala wala mel ni danga ñaari ñaari tànk yi nga jël parce que bi nga bi nga dawee danga koo mbëkk. dama ko mbokk ñaari tànk li laa jël mu toog <laughs> ñaari tànk yi laa ramassé ba du ma jël benn tànk bi ah, ñaari tànk yi laa jël waaw mooy loolu gintee daal maa koy ñaanal jàmm nag di ko nag di ko encouragé bu baax mu nekkaat ci quoi ne ko yoon lemu ci benn waaw grand frère bu maadu la moom it grand frère bu baax la waaw borom baax la gis naa ci moom loolu <laughs> mais daa xamul xale bu mu doon bëre rek waaw moo ko dikkee loolu li moo nekkoon sama deuxième combat. nekk sa deux deux combats deux waaw. Uh-huh. léegi nag nga jógee ci ginte euh, sa yoonu làmb commencé ubbeeku adversaire yi nekk sa kanam taxaw tey boo ñu doon wax kan moo gën a nekk sa kanam ak adversaire bi nga xamante ne bii moo moom moom nga gën a bëgg a sama adversaire bi ma gën a njëkk a bëre moom bëri nañ ci lamb yi ndax damaa xool booyu yu sof lu nekk ci ji boo yooyu laa bëgg a bëri ba wane lu nekk si man ndax gis naa fi ay ndaanaan yoo xamante ne dañuy bëre da may yëngal seen bëre quoi ku ci mën ni booy Jóob ak ñoom booy Ardo booy moom ak lu mu moon da demee maa ko dese lamsaar te damay bëreeg moom incha allah. moom bu waaw moom Ardo xaw ma ci. Ardo jël na biib jël na biib Jóob mais maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may ndam mu ñëw bëreeg man. ak kii beneen booy bu dëkk Malika booy bi fàtte naa tuuram de booy boobu loolu muy bëri neex na ma trop hmm? kunca waaw kunca kunca waaw dafa mel ni dafa mel ni ndaanaan nga bëgg a bëreel ku mën a bëri non damaa bëgg a wone lu nekk si man ndax bu léegi wonee gu ma lu nekk si man ndaanaan comme man laa bëgg a bëreel waaw boo xam ne day am bëre am xeex waaw ba bégal amateur yi bu baax a baax ndax lu may gis a gëm fii mooy loolu waaw hmm. ah. nga jël ka nga xamante ne bi boo ko jëlee dan naan guy gi tey mu dee tey mu dee voilà ma door a wane sama bopp loolu laa soxla moo tax ma soxla yu booyu saf-saf yi booy bu saf-saf moo xam ne dañuy bëri dañuy xeex dem dégg naa nga tudd booy Jóob booy Jóob moom àgg ah, àggaguma fa mais bu ñu bëree ma daan ko de <laughs> la ma tere lu nekk ci man negu ci moom aa waaw beneen booy bi nag daa daan sama doomu ndey waaw moo tax dugg lam saar am fa ndam amaat fa ndam tawul waaw loolu day arrêté bilaay maa ngi koy ñaanal jàmm rek da caatu foora fay daan ak baaba te yile gis nga combat ba ne mu jël sax waaw. nga ma koy furli te dama koy daal incha allah moom kese moo nekk ci sama xel bi. moom ardo même booy booy bi nekk kii yow mooy loolu maa moom combat la war a war a jël kii nu mu tuddati sax giro seeraas. giro seeraas. billaay maa ko mënta bu ñu bëre ma daan ko. giro seeraas xam naa ko bu baax. loolu dama métti dama métti dama koo ko a corriger sama grand frère la daan moo tax ma wax la lu ma laa sama doomu ndey sama grand frère la daan. abu abu la mujjee damay dem Fourné ji nag indi wàllu victoire bi waaw. Giro ñi ngay ngay tudd ñii ci làmb ñooñu jotoo ko jotoo koo bëri ñoom. Giro Seras daan Abu Ndiasse wëlbatu ko di la jël loolu day mel ni moom day day day day day day day day dox mel ni ku jëm. jóge jóge jóge Dakar mën na ko jëm Touba dem ba Thiès wàññeeku waat. loolu dara lamb rek incha allah balaa demel heure bi ñoom may soxla te dootul moom ci jot man. waaw waaw la jëlul ren saison bi saison bi bëgg naa ci bëri quatre komba waaw incha allah ci kattanu yàlla. ku pare rek na ñëw man moom sax instant nii sama papa Maxime Berga laay déglu rek ku mu xool ba ne ma baax na maa ngi nii man pare naa bu dee dimanche sax mun naa bëri man mooy loolu loolu sama problème. waaw am na lu muy waajal Jurbel xam naa foofa foofa lay dàqe. waaw ah, voilà foofu la ma da foofu lay dàqe nag ñu fekk ma sama dëkk jox ma booy bu métti <laughs> jox ma booy bu métti ma bëgg ma mun a bëggalaat waa Diourbel ndax foofu dama leen a yoral bër boo xamante ne mooy loolu namu naa jurbel trop nag aa ah, Diourbel dama faa war a dugaat incha allah mais maa ngi xaar waa Lowoto rek waaw bu ñu ñëwee rek mooy loolu ma dal leen fa bu baax bu mel ni sa combat yëpp ko tëgg ñaari combat yëpp. ñaari combat yëpp la leen teg ñoom maa ngi leen di sant bu baax léewtoo jig na la ah. non sama njiglaay la maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax ndax ñoo ma wone ko waaw damaa nekkoon ci sama ruq rek nekk ci mbapat yi di kii mais mooy loolu comme lu ma la waxoon rek danañ xam ne luqati nañ gaynde bilaaye luqati nañ gaynde waaw bii di ñëwaat nag dañ ma jox spécial mënu da am grand combat naa am spécial ndax gis nga lu may mobiliser ci stade bi eh, non teelul de gis nga lu may mobiliser ci bi am na benn mbër boo xamante ne moo ak kii keroog yaa keroog yaa ngi woon stade gis nga lu fa xew gis nga mobilisation bi waaw kon waaw waaw kon jaadu na instant yi ma bëre grand combat billaahi lu grand combat yi indi dinaa ko indi baa ma indi ku lu ko raw waaw nit da ngay rëy bët moom ah man sama bët weesu na foofu mais yàlla baax na mais nag dox ndànk teewul àgg fa nga jëm lenk lekk ndànk teewul suur tempo tempo rek incha allah en tout cas dynamique bi nga nekk nii boo ci continuer bañ ko wàcc amul amul loo mënul am ci làmb. waaw yàlla baax na mais dox ndànk man. Etienne moo ko doon wax lekk ndànk teewula a suur. <laughs> lekk ndànk teewul a suur mais gaaw a suur dem nekk ci leneen daa baax quoi <laughs> profité ko dem jóg nekk ci leneen daa baax quoi ah, ndax làmb moom daa yàggut temps bu gàtt la waaw mais dara na sama moroom yi jël rek ñu jëflante waaw dégg lu ma la wax sànq rek man demaa war a sama bopp lu nekk si man. Hmm, ndax ay boo yu tudd ñu tudd ñu bëri lii bilaay walaay du ma seen morom maa leen tax a bëri gën leen a gën leen a dof lu leer. kon yow dof nga. man dof yow xam nga loolu ngaaka laa de <laughs> ah, man. ku ah. rek man ku ma xamul mooy dugg si man de. dof yi ma doon bokkante ci àll bi kooku duñ ma laal de. lu leer laa la wax. Ah, kon da ngay mbabat ah, man <laughs> man mbabat moo ma gënal ay combat yi sama combat boo gisee ma ci kii sama gars yi. ñoo may sonal pour ma leen di bégal ci combat yi mais man sama combat bi kan la woon samedi man samedi bi passé rek damaa duggaat ci àll bi mbapat yi. waaw duggaat ci ma bëree ba ko ci lundi ba laa matinaalu waat géej commencé waa sama entraînement mhm. samedi bi passé maa ngi woon ci lambu Fatick bi. yooyu 3 millions yi waaw 5 yi waaw maa ngi woon ci poids lésé yi maa ngi woon ci bi moo ma fa génnee sax xamatuma nu mu tudd sax. moom ma gëlee ci troisième tour yi. Ah. non dañoo xawoon na bëri agul quart de finale mais à huitième de finale à huitième de finale yi laa génnee foofu waaw. noonu la demee nag mais daal lu ma la wax daal moom mooy loolu na ma gars yi jëlaat rek. waaw ndax saison ren bi moom bugg naa ci bëri ay quatre combats incha allah te am naa ci yaakaar am naa ben mu des trois waaw te am naa ci yaakaar bu baax teg naa ko ci sama loxo sama papa Maxime Berga nag. ca santal waaw di di sant bu baax a baax sama combat bi ñi ci jàppoon bëri na combat bi ñi ci jàpp bëri na mais xaw naa des xam nga lu ma métti ah, jàppale bi des na jàppale bi des na ndax dañoo dem ba jouru combat bi ñu paan sarax yu bari mënatuma koo gën a damaa bay mu set ñu dem ba ci jouru stade suñu xaalis soloowul foofu oto bu ñu fay daa tourné bay wàll wu lamb ji jeexee stade balaa dox ba buntu Pikine doo la jël kaar sama gars yi geestu gën maa jàppale bilaay bu ma jàppalee sama moroom yëpp maa leen mën mais loolu nag yàgg na ci yàgg na ci mbër waaw yàgg na may man moom loolu lépp garaawul man naa bëre rek mais métti na trop quoi métti na ndax bëre ba pare tourné sa poos sa poos ya boo oto bu la indiwaat si kër gi amoo ko xam nga loolu dara gënu koo métti waaw la demee nag métti na ma trop keroog damaa dox bu découragé mais yàlla baax na lépp day jeex incha allah. di uh-huh. nga dem ba fàtte yooyu. maa ngi nuyu waa poste Thiaroye bu baax a baax nag. waaw ndax gis naa fu ñu may taxaw waa Jaksa waa jama Jamagen ak sama kër bi nga fekk fii sama papa Traoré moom suma Traoré sama yaay ya combat bi xaalis bu bari lam ci jox ak ñoom Adama ñoom Souma gis naa duñu ma jàppe si combat bi ñoom place bi ñuy dendal ma Ndiaye Pape fay waa poste caaro yi daal borom sareet yi encore gis nga seet mafia bi nu mu mel waaw bu ma jógee foofu nag damay dugg suñu kër fii Jaksaaw maire yi yëpp maire yëpp dañuy jàpp ci combat bi dem Diourbel nag waa Diourbel moom maa ngi leen di ñaanalaat jàmm bu baax a baax dañoo mobiliser ñëw jàppale ma waaw bilaay di nuyu bu baax président GNG Diourbel bi Ngom jàpp na ci combat bi ñoom Ousmane. Ah, ah, Etienne jàpp na Etienne sama Etienne mooy dégol sama papa la waaw Etienne. waaw di nuyu koo xamante kenn la ci man nag mënuma koo fàtte lii lépp moom la ndax métti woon la ci man bu ma bugg a découragé moom may indiwaat muy métti muy neex mu ngeeg man muy Robert Sène kooku moom. coach Robert coach Robert moom wax dëgg sa yàlla. <laughs> non Robert naan Robert dama koy bàyyee yoxo yàlla. Robert daa mën ci bii boor mën ci bee boor moom xam na fi noonu la demee nag man sama lépp dama koo teg ci loxoom amatuma fi am. ndax fu ma ak dara demoon ba ci métti yow gisoon nga nu mu demee woon Diourbel moo ma teg ci loxo di ma teentee di ma teetee di ma entraîné loo di ma yóbbu fu ne bilaay kon fu ma tollu ci lambale kooku mënuma koo fate kenn la ci man waaw di nuyu waa saltigi bu mag bi ngan jaañ maa ngi koy nuyu bu baax a baax Ngagne Diagne jàpp na ci bu baax a baax moom itam Ousmane woon naa ko na ko nang ci jàpp de woowoon naa moo tax ñëw na Ousmane Naar jàpp na ci kombaa bi di nuyu Cheikh Fack Paul Maurice kooku sama doomu ndey la combat bi boo xoolee regroupement bi ay ginaar lu bëri dafa jën bilaay sama doomu ndey la te damaa boo am ginaar mobilisation bi toll ginaar yi maa koy gérer xaalisam bu bari la def ci def ci combat bi jour ba tembo nag muy suñu jouru ma magal siñ siñ Ismaïla Diouf nuuru laay daa tembo woon jouru combat moo taxoon sax combat bi mobilisation bi xaw a demee noonu ñoom ñu dem fa waaw mais maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu sama monsieur moom it gis nga lu mu def kaar yi manqué moom jàpp na ci kaar yi yëpp damaa wax ne mbooloo bi ni mu mën a demee. mais maire bi war na ci gën jàpp ndax yow euh, commune commune Ngoye ngay représenté te moom moom mooy maire Ngoye te nit ku nekk amul amul amul lu dul fa nga dëkk te nit ku nekk fa nga dëkk ñoom ñoo lay jàppale monsieur le maire de la commune de Ngoye sëñ Modou Faye sëñ Modou Ngom waaw sant bi naqare na mënoon ngaa sant fay rek sëñ Modou Ngom kii sa doomu dëkk la nekk Dakar. di représenté Ngoye di représenté Diourbel bien vrai que yaa ngi ciy jàpp ci ay kombaam mais dañ lay gën a lancer message nga gën ko jàppale parce que xele la jàmbaar la gaynde la mën naa bëre am na fulla te li ko dese rek moom mooy jàppale su amee jàppale incha allah su ñuy dégg mbër yu mag yi daañu ko fa dégg monsieur le maire Modou Ngom loolu yow laa koy yow laa koy lancé nga gën a jàppale ki nga xamante ne bii moom mooy guy gi bu Ndofène ndax fu mu mën di nekk guddi guddi Ndofène lay wax guddi guddi Ngoye lay wax te yaakaar naa ndamam sa ndam la victoire sa victoire la te it bu demee ba koy dégg fu sori yaakaar naa incha allah loolu incha allah du doon la nga xamante ne bi yow loolu ngay réccu Serigne Modou Ngom moom maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax la du ma defal moom moo ko defalul dama ko naroon sama booy yi ñoo ko naroon a cotiser mu jël kaar yi ni ma gaa booy booy lu mu tël kaar bu ci manqué rek wax ma mbooloo bi nu ñu mbëri dinaa fexe ñu dem Dakar ñëw mention spéciale pour moom yal na ko gën a taxawu rek moo xam lu mu bëgg yal na ko ko yàlla defal aa ak waa Ngoye marché Ngoye ku ci mel ni Jib Kankayeer yi moom it jàpp na si combat bi sama gaa yooyu yëpp ak ñoom Ibu Are Jakarta bi ak ñoom Ibu Seen ñoom Bat Seen yëpp jàpp nañ ci combat bi bu baax a baax mais waa Ndofeen moom wax dëgg sa yàlla waa Ndofeen Bundu ak Ndaam ak Domb Mbakaan Cheikh Senghor it maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom it day jàpp ci combat bi mbaam di ma woo di may conseil sur Senghor ménagère bu mag bi maa ngi koy nuyu bu baax baax waa mbaqaan waa Domb waa Ngoye waa marché Ngoye ba moom ada jakartaay yëpp maa ngi leen di waat bu baax a baax gis naa fu ñu may taxaw surtout waa Ndofel nag sama dëkk fi ma juddoo fu ma yaroo ñooñu moom mag ndaw gone aw ma seen fay waa xaw ma lu ma leen di defal ndax gis nga suñu sonné sama ba surtout paa yeeg maire yi ak sama génération bi ku ci mel ni sama rakk yi man moom boo gisee tiituma ragaluma ndax sama rakk yi dañ maa bëgg sama mag yi bëgg ma waxatuma nag sama génération bi muy kan oh sama doomu ndey a ngi noonu Dérangé bilaay sama xarit la Dérangé sama doomu ndey la sànq la ku moom mooy woon nii hmm. ak bu Jurbel hmm. mafia boobu amuma seen fay moom mooy loolu maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax sama bés da ciy son moom ñoom sita waa écrit góor yam yëpp daal waa écrit góor yam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax sama nit lañ di ñuy sama gaay nag ku ci mel ni ñoom falu ñoom mbay ndeela a ñoom Tidiane fa ñoom caat mbin biram sama boo yooyu il faut matul leen ko waa ndax lu ñu daj ci man sama combat lu mu di jaral mooy loolu bilaay mais nag yàlla baax na na leen bàyyi la dox rek too xam ne lu ñu bugg maa ngi ci maa ngi ci entraînement bi maa ngi ci lu ma war na seen xel daal rek di déglu lu ci des ñu teg ko ci loxo borom di déglu promoteurs yi rek incha allah ci kattanu yàlla non man <laughs> takaluma soxna nag <laughs> célibataire la soxla sax am naa si kanam. Ah. waaw. boo amee ñaata combat ngay am naa bu ma amee dix combat rek. Ah. pare gu ma de. yow deux ngay soog man lu ma kenn damaa nobbul. ah kenn nobbu ma est-ce que am jabar sax man mii. <laughs> am nga xale boo bokk ci oto bi waaw am nga gel quoi. amuma gel moom amuma gel lépp bay ba bagar. 31 bi demoo ma. wax la lu ci garaaw nag. 31 ah. ak 24 bi. ci géej bi fajar cinq heures du matin keroog laa xam ne dama ma paa fekk ma foofu ñaanal ma ñaan boo xamante ne combat bi du mu mënoon demee damay daan 31 décembre ma dem ci géej ba mu wee trop ak mu daan xumbe ci fajar bi man kese ak yaray cinq heures ñëpp noo ak seen wallaahi paa bi romb ma foofu ni ma doom xalaa da nga am combat ma ne ko waaw dama am combat de mu conseil ma conseil yu baax ñaanal ma ma ne oh sama yaram daa daw sax may bu may dem cinq heures du matin laa dajeeg nit ñi ci kaw tali bi ñu feetu ji booy ñëw ma xam ne lamp moom mooy loolu <laughs> bilaay. kon 31 bi feetu ko. bi telu ma ko man lamp rek. non le 6 bi moo taxoon quoi. le 6 bi moo a ñor man lamb rek moom ma ñor ay affaire yooyu moom man bayeeguma ko xel quoi. Mm. Mhm. mais mais xale yu jigéen ñu ngi lay tooñ di la mbalak di bëgg génn ak yow. man kenn tooñu wax laa sama supporters yi rek am naa ay supporters yu jigéen yu bëree bëri rek. <laughs> mais amuñu la ciy piis. non kenn piisu ma ci ñii sama rak lañ ñii samay doom lañ ñii samay xaar ñii samay fan si club lañ. may yow laay waxal li ma lay wax xam naa ko man amuma. amuma amuma kenn waaw waaw. amuma gel amuma kenn xanaa bu ma daanee ay dix combats yooyu daay ma commencé xool. Hmm. ndax xanaa boobu dina ma commencé di jéem a nopp ma instant yi nii. instant xaman xam ñaaw damaa dof mooy loolu. ay jërëjëf waa place bi. maa ngi leen di Traoré et maa ngi leen di maa ngi leen. ñëwoon avant fii ngeen ma fekkoon ma ne la affaire bi après retour bi da ngay ñëwaat fi ma ne la lu ma la waxoon. maa ngi sant yàlla daan maa ñëw plateau. maay daan maa ñëw palaato maa ngi sant maa ci sant yalla bu baax a baax ndax du sama monin yàlla àndoon ak man. Hmm. waaw du nuyu waa place bi bu baax a baax képp ku fi nekk sa xaalis dem na ci jouru combat bi. bilaay di nuyu sama papa rek ceeb beek yëpp moo ko res defal ma lépp sama yaay bi roq ya bi waaw xaalis bu bëri la ma jox Adama jox ma ci xaalis bu bëri ñoom suma même sama jigéen yi ci biir di defar ndekki yi waa dañ ci jàpp. ndekki laay def. ak nga mën a ndekki. gisoo si suba si laax laa ndekki ji woon léegi bi nga ñëwee fekkoo ma fi dama demaatoon ci Aminta maa ngi koy nuyu di nuyu sama supporter. ñaari yoon ngay ndekki. waa restaurant bale maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom faa Cissé ñoom faa siisee wuyu woo de ñaari da xëy ndekki laax mi di jot nga ndekkiwaat nga ndekkiwaat waaw ma dem ci aminta dooraat foofu mbuuru <laughs> waaw waaye leen di sant bu baax Mbaye Ngom maa ngi koy sant bu baax daa soni si combat bi moom itam ak ñoom gay ay ñoom élément yi ñoom ñëpp bilaay mënumaa wax sax mais yàlla baax na quoi amin amin amin bi gi kooku moom mooy guy gi Ndofène doon bëre ak ginte bu écrit Falaye Balde le 6 passé suñ borom defal ko ndam ñu koy ñaanal ndam li jik ko gintee tamit ñu koy encouragé di ko wax ne làmb noonu la bul bàyyi continuer say entraînement ñëwaat xam ne làmb ci nga bokk mbokk yi jaajëfal nañ leen ñu ngi woon fii nga xamante ne bii moom mooy Traoré et fils nekk fii ci postu Thiaroye yi dig day dig daje incha allah benn yoon mais idi suñu xarit bi mbay Dieye Faye waaw mbay Dieye Faye sañ sañi biram Gueye kewe la mère de Awa jaañ moom moom mooy moom mooy moom mooy doomu ndey Sunjata Kayta moom moo nekk fële euh, biir jàmm gën waaw macha allah menuisier menuisier boobu nga xamante tapissier tapissier ba boobu nga xamante ne bii macha allah képp ku bëgg li nga xamante ne bii moom mooy euh, sal salon bu baax wala nga bëgg lal yu bees yi nga xamante ne bii ñoom ñoo génn nga bëgg ci lal yu baax bëgg ay photo yu baax bëgg ay coffre yu baax gaawal seet si Mbaye Dieye Faye doomu ndeyu Sunjata Kayta doomu ndeyu Idi doomu ndeyu Mbaye Babacar xaritu presse bi kontaan naa ci yow Mbaye Dieye le grand champion yàlla na sa jàmm yàgg dig daje incha allah beneen yoon mbokk yi beneen daanaan